moom mooy war a musal ci alquran yu baax yi ak góor yàlla yëpp di musul ci seytaane bu mu xajamal solo diine waaye bu mu jàngalal solo dund yàlla subhanahu wa taala wax na yonent bi alayhi salaam ne ko jullit yi ñëw nañ di la laaj lan moo tax weer bi di teew ak di xëy wax leen ne kat teew te weer bi ak xëy ak weer bi ay waxtu laa ci natt pour jullit yi waaye seen ak jàmm ci laa ci la ñuy tàllal seen koor ci lañ koy dog ci aj ci aj màkka waaye seen jàmm yi daal ci teeru teweer bi lay aju ak ci feeñam yàlla wax na yonent bi alayhi salaam wax ñu ne ñun jullit moom yàlla suñu kilifa fartal na ci ñun koor comme ni mu ko farataale woon ci ñi fi jiitu woon ngir rek suñu ragal yàlla doolleeku ay fan la nag yu yàlla lim farata mooy na nga woor ku fekk say ram sudal bi ñàkk a wala lay tukki sañ nga ñàkk a woor lépp lu nit wala ci lu baax lu mel ni togg wala joxe xaalis ba dimbale ni daal ci wér koor xiwal da la jural wér koor daal barkeel réer bi waaye dugal ci biir weer koor guddi gu tudd laylatul qadri jaamu ko ci yàlla gërëm tolloog juróom ñeent fukki weer loolu daal tax na ku mu fekk ci àddina nga weer na nga woor ku mu fekk nag mel ni ci xat-xat xaaral yeneen fan yàlla suñu borom yomb-yomb rek la la ñu boole waaye xaj nañu jafe-jafe mooy fexe na boolu jafe-jafe nañ fexe ko ba mu mat te mag bi mooy na mag ñaar fukk ak juróom-ñeent wala fanweer waaye daal bu mu manqué ñaar fukk ak juróom-ñeent nañu sant yàlla ci jamono bi la rawat na weer koor yàlla sunu borom jur bi ñëw nañ ñëw nañ di ko laaj moom yàlla fan la ne wala nan la mel suñu borom tontu ñu ne fan laa ne ak nan la mel amalul leen njëriñ leen amal leen daal xam leen ne maa ngi fu ne te jege naa leen seen soxla yi mënu leen koo faj ñaan leen ma ko naa leen jëlee seen soxla loolu mooy amal njëriñ yàlla nee na daal nañ ko jege nañ koy ñaan yàlla nag daganal nañu ñun jullit yi ñu aaye woon ci bëccëgu weer koor muy yolombal ñu ko ci guddi weer koor lu mel ni lekk ak naan ak sëy nga ne araamoon na la ci bëccëgu weer koor waaye day dagan ci guddi weer koor ba keroog mm, ñuy salaat diggante nag fi ñuy bàyyi Lakini sababu borom xam-xam yi tënk nañ ko ci fukki minute lu tuuti tuuti maanaam téye pot ndox di naan noddukat bi noddu nga naan teggagul ci baabu salaatu loolu nekkul sunna mooy war nga arrêté lekk fekk salaatu des na juróomi minute wala fukki minute waaye ci njëkk la teg noddu bi daal balaa mu yëg ci baabu salaatu loolu sa yàlla ko si yàlla daal daga daal nañ ci ubbi ko di weer koor di bàyyi ko ci bëccëg nañ bëri tamit lu ñuy jege barab jaamukaay yàlla yi ci jamono ju ne rawatina rek koor xanaa déggul xanaa dégguñu kàddu bu sell gi soxna Mariama wax muy yaayu Isa mi yàlla tuddee so surat Mariam moom de waxoon na mbokkam yi ne leen man dama woor tey du ma wax ak kenn looloo waral ci xadis dinañ jox yonent bi alayhi salaam nee na bëri na ku xëy ñu ne daa mu ngi wo mu ngi mu ngi mar bopp mu nga wow mooy xiif ak biiram biiram ngay jooy waaye amul ci koor bi mooy xiif ak mar parce que li aaya ci koor ba la dara diine bi yàlla gërëm daal mooy lislaam kuy ut ngërmaan yàlla ci lislaam nga koy wutee ku topp yàlla ci yoonu lislaam yàlla lay gërëm waaye topp yàlla ci yoonu lislaam mooy topp yonent bi ci ci sunnaam yonent bi daal moom la yàlla ci alquran buñ ko toppee dinañ jóg waaye danañ baax waaye danañ yéwén moom nag mi yàlla yónni yàlla teel na koo ne ko li ma la jox du yokku waaye dina jafe waaye jafe-jafe bi yokk ciy topp su boobaa ne yàlla moo lay musal ci nit ñi duñ la mënal dara yàlla moo lay ba moom mu soxla la jël si la yéeg yi nag da nga ko jéem a muñ waaye naa la jox li ñuy wax kawsar kawsar mooy lu dul jeex rek loo xam ne du naar bu wér ubbi koo xam ne adduna fu jant nit ki sa diine dina fa yegg yow sa jëpp dafa rafet yegg la ci benn boor waaye sa xéewal du dagg sa teewlu nag yéen la jox amul àpp ci màggaay yéen jullit yi nag li nga xam ne moo leen war seen diggante ak yonent bi daal lim xiir ngir yéen lim sonn ngir yéen lim daj ngir lislaam benn pay rek la leen laaj benn pay mooy fonkal leen ko njaboot gi mu jóg loolu moom lañ ko def sérif ñoom sérif kuy sérif daal bu ñëwee sa buntu kër lañ la adiyee maamam loo am na nga ko jox soo amul nga wax ko wax rafet xam ne moom laaj na la lu la war a laaj te laaj na ko ñu ko war a laaj mooy jurit waaye dàq sérif mu génn sa kër wala nga taxaw ne man sérif du ma ko defal dara te ñu dëkk ci yow loolu bu ko gën yaw daal yàlla la yónni ñëwuloo pour not nit ñi maa ngi lay ay xabaar yu weesu woon pour sa gëm dolleeku sa dogg gën a dëgër yooyu ma la wax bokk na ca xabaar yonent yàlla yuusufa ak xabaaru asxaabul kahfi ak xabaar yonent yàlla ibrahim ak yonent yàlla suaybu ak yonent yàlla ak yonent yàlla Yuunus ak yonent yu mel noonu nga xam ne ku ne am na koo jaar ci ay jafe-jafe waaye yàlla bala mu la tëj àddina may na la ay ndam loolu yëpp nag dama ko def rek ngir su mu la waxee jiw fii la jaaroon sa togg gën a yokk waaye sa muy gën a bari yàlla na xam nañ xam ne ñun yàlla def na ci biir teetu lislaam ay kilifa yoo xam ne kilifa la ñuy dindi nit ñi teg leen ci li yàlla wax waaye ommatu ànd ak ñoom ci ko def te li ma daal wéetuwul ku la gën a xam yoon boo ne mos na faa dem waaye masalan ku mos a tukki ci benn barab yow nga bëgg a tukki may man min naa fa mën nañoo ànd du la paasaaleel da ngay paas mu paas waaye nag moom mooy wax ne nañ jaar fii nañ jaar fii ba nga yegg loolu mooy imam loolu mooy sëriñ amul kenn koo xam ne yaa moom ajal ba mën baa yóbbu nit loolu amul waaye moom xam na yoon wi gën a gaaw pour ñu egg fa nga mu jiitu nga topp ko ba ngeen yegg boo bañee jaar nag ci yoonu ko xam foofa waaw mën nga yegg bu neexee yàlla waaye yegg day yéex lii hadis la hadis mooy loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ñambaat ko ci kàddu yàlla ngir suñu dégg gën a yomb waaye suñu jàmm gën a sell yonent bi alayhi salaam nee na yàlla moo waxal ko wax ci hadis ko si ne koor dee man maa ko moom man lañ koy defal moo tax maa koy fay du ma yónni yónni du ma yónni malaat ni ki jalauhatnani kiordin ang nyari birte muy kumi ang pamit jogu waya mirte kumi ang pamit aja gyalla muhammed muhtan allah ya jwali taraniya sulen xamone jëru ñu wéru koor barke doon ngeen bëgg at mi yëpp nekk wéru koor ngir tiyaa ko ju bëri ci ci nekk koor nag cosaanam cosaanu koor ci lislaam li ko indi mooy lii yàlla bi mu bindee nit daf ko tànnoon jël lu dugal ci biir jëm ji benn bés mu oo ko jëm jëmm demonte biir ak yépp par pièce di ko pièce yi nak benn par benn kum ci won ne ko yow yaay kan nga ko yaay sama borom wax lan ko laaj tan tan ne ko yaay sama borom loxo ko ne ko yaay sama borom ba cëri jeex ko ne nangu na yàlla moom yàlla moo la moom bi mu jëkkatee ruubu nek ko ku la moom ruubu nek ko yalla man kenn moom moom yow yalla nga man ko la yàlla damaa ak yeneen ñu tëjal ko ñu dem tëj ko kaso ñu teg fa ak diir ñu jékki-jékki génnee ko yàlla laajal ko ne ko ruux yow yaay kan mu ne na wax yow yaay yàlla man la ruux yàlla tëjaat ko daal di waatee ko yoon bi nag bañ ko jox lekk bañ ko jox mu naan arrêté lañ dundam dañ ko fa tëjee ak diir delloose ko yàlla ne ko yow yaay kan mu ne ko yaay sama borom bu mag ma lay sa jaam ko dóori yàlla na ko kon nag bakkan dégg xiif rek moo ko mën a yàq ku ne xam ne ñu ngi bu doon takkusaan feddee ko jaar ci mbedd di nga xam ne war daal moo mën a yàq bakkan yàlla na yàlla nangul amin njëriñ bi ñu toppaat nag mooy am na bi ñu juddoo dañoo fekk seen baay yore ay milliards mosuñoo xiif benn bés mosuñoo xiif benn bés moom ñoo xam di mu ñu patron yi yore lu bëri te mosuñoo xiif xaaral ma teg loolee comme yéen ngir ñu am yërmaande di leen defal patron bi daal di yendoo xiif di bëgg a xam nga xiif di sottee ko glace ñu ne ko mu ngoog nag soo jubal sa alal yokkal ko waa ji nag sa tiyaabo day gën a bëri keroog la commencé am yërmaande keroog la commencé am yërmaande ñëwee ci ci ñi ci ñi dëkkee xiif kon patron yi ñoom dañ ciy yëgee ne am nañu dëkkee xiif loolu tam njëriñ la يلد يمانتنا كنا ياكو ويكبتنا كنا أم بيجتو كنا موي def jaamu naa dafa mën na ci am bam des woor nit mën na julli mais dafa mën a julli parce que doon na ko nit mën na tawe asaka parce que ñee dafa tawe nit mën na dem màkk parce que alaaji ko dégg wala ay yàq waaye woor tëju ci néeg bu am frigidaire ñam ne fa sa tëju yàlla na léegi kenn daa yow la mën a yow dong ko kese rek nga xiif sa ngoon nga teg sa ndogu ndogu sant yàlla yàlla mën a léegi nag dëgg la ci yow dëgg la ci man asawmu lii wa ana asi bi maa taxoon day woor kon du ma yónni malaaka du ma yónni benn yónni maa lay fayal sama bopp bopp loolu tax mu wax ci ayat ne la'allakum tattaqoon yal na yàlla nangul ñu suñu koor yal na yàlla jàppandal ndogu yi yal na yàlla def lislaam di ñu tiitaroo ñun tam ñuy tiitaroo lislaam dëgg yàlla fi yàlla def jàmm def xéewal def fi ndam def fi dimbal def fi nangaage def ko ci dund bi def ko ci région bi def ko ci réew mi def ko ci réew mi yëpp wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa sallim wa qumu ila salati yarhamkumullah Thank you.